Muhammadu Rasulallah محمد رسول الله كنت الكرمي مولا مولا مولا نعمي هذه الأمم لشريعته سيدنا محمد أزكى نسبي xasabi borom guddi gi kullal arabi fi xidmatihi yonent yàlla Muhammad saatil saja dem may way ku ko sopp dem àjjana waa may way ku ko tàntal dem àjjana ana ki fi gën a bëgg yéen yàlla muhammad sag ba ci madina bari naa génn sag waa ca njàqare yaa sayduna muhammad asal na alal muna daana ila taqwa yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaynde gameena maamam cheikh na cheikh saadu la bi bàyyi cheikh taalib yak si daa teg duna na kadraame si dëbb ya cheikh saad bu neena xusa nabiyana bi asratil xisaal lam yaxtalim xattun wala lëzilaal wal ardu lépp lu génn ci yonent bi suuf si da koy wann ba mu jeex ngir warmaal sayyidina muhammad wal ardu ma yuxrij minhu tabtali ana sabi rasulallah kaza zubaabu anu xaqan mumtini sayyidina muhammad sayyidina muhammad sayyidina muhammad sayyidina muhammad ñun bu ñu woowee dañuy gëstu bu ñu woowee dañuy gesu mbaa ñuy laajte kii woote kan la waaye seen maam mësta dox di gesu gannaawam ndax déedéet na muy gise kanamam noonu lay gise ca gannaawam seen maam Seydina Muhammad bu masaan a dugg ci lëndëm du yor làmp jarul muy niit ndax ni muy gise ci leeraay nabi lay gise ci lëndamaay kenn mësu ko bett ginnaaw man xalfahu yaraa kamaa yaral amaam kunta seen maam waaye bu masaan a tëdd di nalaw nga yaakaar ni dafay nalaw bët ya rek gëmm waaye xol ba nalawul sayyiduna muhammad tanaamu aynuhu wal xalbu laa yanaam lam yatasaa tant bi maa fi gën a bëgg Seydina Muhammad lam yatasaa mbooloo mi man sat bu maa fi gën a bëgg Seydina Muhammad da ngeen koo wedd bu dee am na ku ma ko gën a bëgg jógal te xaw naan ma maa ngi nii ñu màgg rasulallah yaa xabiballah safal wara borom guddi gi yaa leen gën Muhammad yaa leen man Muhammad yaa jara daw ba dee yaa rasulallah ku sopp yonent bi jugal te xaw jaayu dole ana soppay Muhammad la la la viens, viens, viens me chercher. الغوث خادر جيلاني عائز العلوم والعرفان سيد المهملة والدين دوم موسى جنكي ماما مي رسول الله خير الانبياء li may wax képp ku ci ànd dem àjjana yenent bi nee na ku ma way genn wàllu way allah allah warlul naa la àjjana wax leen Mustafa xayrul anbiya wax leen Mustafa xayrul anbiya way xanaa déggu leen ni yonent bi wax nee na ko ma way genn wàllu way warul naa la àjjana kon nag tant bi yéen ñëpp àndandoo leen mu riir ca kaw wax leen moo safa xayrul anbi maami Cheikh Sidi Yaxya Kunti yu nee leen xayrul anbi sama waaje du ñii te duñu moom sallallahu alayhi wa sallam sama waaje du ñii te duñu moom giru giru يمله جي صلى الله عليه وسلم يمله شهادة ينتبه يمله siyaadatu Seydina Muhammad yamalugo baraatu yamalugo shafaatu xusbi yabi ya Seydina مقيم الحسرات فلتمح مني سيئات أنت مقيم الحسرات مستحيح لي sàkkul jinne sàkkul malaaka booba yàlla sàkkul dara walaa jinaanun walaa naarun walaa malakun walaa samaaun walaa ardun min alxikami leer gaa moo njëkk a kawe yàlla Muhammad jërëjëf Muhammad sama sët la ndax yaayam maa ngi jaayam wala leer gaa jëkk a kawe leeru yent yàlla muhammad wala ma antakalla nuur muhammad sallallahu alayhi wa sallam min sihri jiddi abdil mutalib ila sihri waladi abdallah ibni fatimati almaqsumiya ala qadrihi wastaara fadla bayn al anam bayn al anam bayn al anam bayn al anam wa kaana yatalahu fi سوريا فمرت عليه خطيلة أخت ورقة بن نافر فدعت لنفسها وخل فقال لا أرضى بالحرام يلا جل ليرو سيدنا محمد تندق مامم عبد المطلب جوكو عبد الله ما ورا جور رسول الله ba leer ga ñëwee ci ndiggu abdallah yàlla yéegal leer ga ca xar kanam ga abdallahi kanam gaa ngay nes nesi kenn mënatu koo xool ngir leeru sayyiduna muhammad ba leer ga jàngaar loog jigéen ña jigéen ñi mënatunoo muñ leer ga kenn ku ca nekk nga naan abdallah tee ngaa ñëw ma ànd ak yow benn yoon ngir mën a jur leer gi ñëw abdallah gi naan leen la aw bil haram duma def lu ñaaw ci leeru sayyiduna muhammad leer gaa ngay dem ba ko jigéen ña sonalee Abdallahi daw ca baayam Abdul Mutalib ne ko baay utal leen ma soxna ñu yóbbu ko kër baay Nurbin fa tazawaja Abdallah bi Aminatil Batulil Mardiya jël nañu Abdallah dégg ko Amina guddi àjjuma la ñu ànd ñoom ñaar wuli da Muhammad ëmb nañu wuli da Muhammad ëmb nañu mbër ma ëmb baa njëkk rëy ëmb baa njëkk rëy weer wi day weer wu rëy waaye weeru ëmb wa ak bésu ëmb ba di guddik àjjuma loolaa njëkk rëy ndax lu ko waral mooy gaynde li muy soxor soxor ci rab yi keroog mu ngay saafoon teg rab ya nan leen tey ji kenn du rey sa moroom kenn du mitital sa morom dañu ëmb sangu àdduna ak àllaaxira boo demee ci biir géej gi jën yu mag yi jën yu ndaw yi lañ daan dunde waaye keroog jën yu mag yaa ngay saafoonteeg jën yu ndaw ya ngir kontaan ci ëmb bi nu ëmb Seydina Muhammad Abdallah gi takk ndigg la ne damay daani sama doole ndax yàlla dina ma may doom ju rëy joo xam ne bëgg naa koo ngénte ngénte lu rëy abdallah ngay dem ci njëg ma ca saam ba mu yàgg feebar daaneel ko abdallah nga tëdd feebar mbokk yan ko tiim abdallah mu ngay jooy la ilaha illallah abdallah ngay jooy mbokk yan ko naan abdallah gi bàyyil sa jooy yi xanaa xamoo ni feebar sore naag dee abdallah gi nan leen jooyuma feebar ragaluma dee waaye seydina muhammad mi nar a ñëw ci sama ginnaaw duma ko gis ak bët loolu laay jooy nam ko waxee woon noonu la ko yàlla defe yàlla jël na abdallah mu génn duniya te booba nabi juddoogul ci ñaari weer seyduna muhammad mu ngi ci biiru yaayam ëmb baa ngay dem weer wu nekk benn yeneen wàcc na ndokkeel sangu àdduna ak alaaxira di ndokkeel amina ne ko yaa ëmb ngën ngi mindéef yonent yàlla muhammad ëmb ngay dem juróom-ñeenti weer lañu am rasulallah ba mat wa ñoree ba mat wa ñoree bisu altine la woon bés ni tey gàmm gi asar amu ci déedéet ndax yonent bi altine la juddu bésu dimanche ngay jàll fajar gay xar njol ma kaa ngay gane jamono waaye bi muy juddu ni liir yi di juddoo nabi juddoowul noona seydinaa muhammad jiitalul boppam déedéet ay tànkam la jiital na fi dafa nabi dafa juddu ne cëpp taxaw bank ñeenti baaraam ya kenn daggul dara ci moom kenn raxasul dara ci moom seydinaa muhammad kenn sangu ko kenn fompul dara ci moom muhammadu rasulullah bi mu juddoo dafa taxaw banque ñeenti baaraam ya tàllal benn ba naan allahu akbar jala qala rabbu rafi ana soppey rasulallah malaaka yaa nga naan yarhamuka rabbuka yaa xayral anam sayyiduna muhammad moo tax ma naan bi mu juddoo moom mi ngi set taqul deret taqul meret xetam nga neex jëmmam rafet na bëtam ya tusngal moo ko wër nabi bi mu juddoo moom dafa set taqul deret taqul meret xetam ga neex jëmmam rafet bëtam ya tusngal moo ko war ee rasulalaa yonnen mi fi nekkoon te daan digli lu baax xayaarul alamin borom ma dee gee ko ñaanoon mi fi nekkoon tabaan di leen baax yow góor waay kii mooy soxna Umu Kalsoom mooy taawu Seex Mbay Njaay bu doon góor mooy xalifa bi waaye demul bàyyi dara mi ngi tagg Seydina Muhammad bàyyi Fatima ak Seynaba Roqiya ñi fi nekkoon te daan digle lu baax xayaarul alamin borom Madina sallallahu alayhi wa sallam waaw góor waay sangi ba jamadina rasulana ay yónneen mi fi nekkoon te daan digle lu baax xayaarul alamin borom Madina ana soppe yont yàlla Muhammad loxo ca kaw ñu màggal Seydina Muhammad محمود مصطفى لا خيرنا دنا waaye na ñëpp def ni ñu màggal yonent bi Citizen seen maam walaysa samsun badat walam yakun qamara walam takun jannatun wal insu fi nazmi mustawa ndeysaan wa jalla jalaalul hayr an alamiya ndeysaan mu ko alaay tey ah tabarakallah mbooloo mi ko nay ne moo dàq toj na si sabaan toj na yaa maama toj na yaa maama zaatul zadul alam zadul alam di odo nabi ndeysaan ana soppey nabi na ñëpp def ni alaji ma jor kumba siise jaxa ma jor kumba siise jaxa siise maada ne ne bañ na yeneen du weer ñeela maa déglu ba naa ñeelal lu wér wala maa xamal naa fi jëwgal waxal ko mi a jëwgal yi sulma waxal ko mi ne sulmi nuur Seydina moo xar naa du jamaa la yàlla a bind jamaa la yàlla njëkk a bind xool jamaa muy na si si ba mu yàgg mu bind lëndëm lëndëm suul jamaa yàlla xul lëndëm di ko xool ba mu yàgg bind bu leer leer ñëw dàqat lëndëm yàlla xool leer. di ko xool ba mu yàgg mu génn ca leeru ko sax ba ñetti xaaj di xalimaaka bi di am wéy ma di ba la xaaja ñetti xaaj bii di kursi bi di baax yal am laa ni bii di asamaan ni bii mu bind ci mu bind ni bii mu bind di ajama bii di safaan ba neexul leeru Muhammad soo bëggee ba dégg say nopp neexul leeru Muhammad soo jàngee ba am du sa gisul leeru Muhammad nuru absaar mu'minin nuru unsigin nuru ma'rifatin billahi la ilaha illallah Muhammad rasulullah ñii ne nan day may su ma dëgg alxay sa nañu ne gaana isa naa rekk ne Abdoulaye Nabi. ndeysaan ñu ngi koy ziar bu baax jërëjëf Kounda jërëjëf Kounda si. ndeysaan soxna Ferte Kounda. waaw góor. ah kooku ñu ngi si mooy Mamadou mooy Baou si ko koy jëlee sànq. nañ ko jox siis bi nañ ko jox siis bi bisimilah bisimilah Mamadou. alaaji Malick ne l'islam am na fukki nit dina buy julli ku sopp góor ga ca Tiwaawan jógal taxaw ca kaw Maam Maodo Malick ne lislaam am na ñaar

جدلا وكان بحابد زاد رمي وبنبي أسلم الفاروق فاروق سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر عمر عمر مات الإسلام الإسلام لله كنداب الكمال bégloo na ñooñu asamaan bégloo na ñooñu ba ma ne mu alliman ala islaman fata omanen fata omanen fata omanen busrani ahli sama wa yuhdar Cheikh Bamba ne dëgg la si Maalik murit ak tiijaan ak xaadir ak laayeen ak ku doonul jullit ñépp bëgg Allah ji Abdul Aziz si Maalik daarul fanaa fiihaa ginaa wa tazamunaa daarul xabiib قلوبنا أهواها دار حبيبي ما تيجي من يقول taybatun nee na day digali tijaani hiya taybatun taabat li tibi usuliha wa madinatan rabbu sama sama

loxo ja kaw ñu màggal Maodo xalifatu Cheikh Ibn Mokhtar yaa ngi fi mën a mën a mën yaa fajal bi